jógee ci leen di dem vacances fa la doon jaayee crème Aïda n'avait rien bu ñëwee ni Cheikh Béthio ko defar elle a parfaitement raison foofu moom Cheikh Béthio ko defar ndax Cheikh Béthio tax nit ñi xam ko parce que elle n'était rien du tout. benn xale bu góor taalibe Cheikh Béthio Thioune doon jaayee marché Colobane moo njëkk nekk jëkkëram Aïda Diallo Cheikh Béthio moo takk ci sëy boobu Aïda Diallo dem au bout de sept mois mu am doom. sama ñam maam ni nañ tas sëy bi dugg na fi génn na faa ñu ne doom doom day prématuré mois dugg na fi génn faa dama lay waxal histoire fa la bi njëkk commencé Cheikh Béthio mooy day tas sëy bi mbokk yi pour defar xaw ma yàlla rek xam dama lay wax de mbokk yu ñu ne sëy boobu ayda ba fa sëy ba muy tëdd la jógaaleeg ëmb dugg na fi génn faa donc doom bi mat na sept mois prématuré dugg na fi Cheikh Béthio bàyyi Cheikh Béthio ni jëkkëru Aïda na indi Aïda mu sëy si euh, Touba xale bu góor bi ni ko man damay liggéey si affaire mooy boobu ñuy gas affaire Sonatel si suuf yi dañ koy fii la amoon ak Dakar la njëkk am ak tuuba xam nga lépp lu am Dakar am Touba bu ko njëkkut am dakaar bu koy am Touba di ko am en même temps mu ne ko Touba am na ci mu jëlu wax waa ji chef am na ko indi Touba. ndeke lépp pour dama lay wax kaamil de xale bu góor beeg ayda Diallo ba Aïda Diallo doom juddoo ba mu demee Touba defe naa amu fa 6 mois mook waa ji ñuy xeex ndax Cheikh Béthio di xuloo di xeex di xuloo di xeex ba Aïda dem di boole di boole sëy Cheikh Béthio tas sëy bi ni moo ko takkoon tas na ko barki Seydina Muhammad Aïda amul sama kër maam Faas 15 jours Cheikh Béthio ñëw ñaan ci ko jabax kon dama lay wax lépp fu mu commencé Cheikh Béthio teg gi mu teg Aïda ca kaw naka lañ koy waxee sax euh, dangaa dangaa lañ jéng jéng ci ay jabaram da ko commencé sëyu xale bi taalibeem la tas takk Aïda 15 jours après. nga baal ma ba mu ñëwee sa maam mu ne ko ma ñun duñu may suñu doom dama leen wax histoire bi nu mu demee du ñu may suñu doom géwél xamuñ géwél nga xamuñ tëgg nga ñun ay pël lañ. moom muy pël di séréer man ma di wolof di ab géwél yaa ngi dégg de kon bokkut ukas à l'origine magam may ba ko ndax sa am taalubee moo bokk ak moom ndey mooy taawu ndeyam may ma ko ay mbokkam li tàmbalee ci ndeyam ak ci mbokkam ak ñi ko yar ni ñoom du ñu sëy akub géwél kii ni leen laajuma kenn sa argument sa sa man damay sëy ak moom bokki def ay seeni wax mu def waxam dëgg ànd moom ndeke booba yàlla dogal na sama digg ak moom maa moom ñetti doom yu góor yu ma tudde Serigne Saliou muy jigéen ju maanu di jigéen ju rafetum xel yaa ngi dégg de may leen ba tuuti rek kii lii wax ba daanu xool bee sori ndax daa am lu mu fàttaliku lu bari waaye as gora ngi ab taalubee gi nuy dem ba ma ko di yaay man maa yow la ma Serigne Saliou waxoon. te yow waaw sax maam li mu wax laa leen de te ñun ay taalibe cheikh lañ cheikh Béthio ni ko kii de maa koy takk jàmm ayda nangu yi nga ba Aïda amee premier doom ak cheikh bi bul décroché ba ba Aïda amee premier doom ak cheikh bi. Cheikh Béthio dafa ñëw xas sama maam parce que sunu kër genn wàll gi baraag la woon Fass genn wàll gi nekkoon euh, euh, naka la tudd terrasse fa la sama maam dëkkoon baraag bi lañ luye woon ay séeréer Cheikh Béthio ñëw si ngénte gi xas sama maam guddi googu sa maam hôpital la fanaan ndax tension naan ko murit bi murit bi sagal na tijaan bi euh, tëgg bi xawma géwél bi sagal na géer bi daa xas sama maam ba sama maam ràppi li nga faas koñ yi luñ guddee sunu kër boo jógee si benn koñ bi booy dugg si moom ngay njëkk a jot bu dee beneen koñ bi sunu fami sunu kër ngay mujjee jot Aida ca bopp koñ ba nga xam ne que boo dugg see sunu këree mujjee Aida la jógee di raam ak yéreem jógee salon di raam ba si buntu ba si eh, tànk jëkkëram Cheikh Béthio mu yëkkati foofu million millions nañ ko jëndali ji yére mbokk yi ñëw leen pël yi ñëw leen dama leen di wax de Aïda Diallo Cheikh Béthio yóbbu ko sama début wax dégg nga sa sànq ma ne la soxna Aïda Diallo moom a njëkk invité Touba soxna Aïda Diallo papam Yaram Diallo waa ji nekk ci tele bi di lëmbe naan may pàppam may papam c'est pas son c'est le demi-frère même pas ku bokk a nekk bàyyi pàppam de demi-frère u kooku nag euh, li tax mu wax mooy pàppam dafa xawoon jege fi Aïda yaroo mooy Fass Fass sama kër maam nday aaw la Aïda yaroo seen kër Fass laa daan yendu ba 96 ba ñuy jógee Mbour di dem Dakar ah autant pour jóge Dakar di dem Mbour sama papa jënd fa kër Aïda maa ko njëkk a yóbbu Mbour sama bakkanu njaboot barki salaatul fatiha ndax papay Aïda yaa xam Diallo ak sama maam Kumba Diallo bi jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay Aïda ak sama papa doomu nijaay doomu bàjjen lañu ak xan doomu nijaay doomu bàjjen Aïda Diallo papaam comme jigéen dafa rafetoon rafet rafet kooku sama ñam maam nee nañ woon gudd fan accident moo ko rey mook chimère Jaw mi ngeen dégg ci euh, Saint-Louis ay mbokkul ay xarit lañ benn bakkan lañ woon. moo tax famille boobu jege suñu famille dañ dem ba nee nañ ay mbokk lañ kon Aminta li ngay wax lépp kaamil la dama la koy dëggal parce que tey résumé bi nga def lépp a leer lépp a leer te maa ngi ñëw li liiruma yeneen yi desi nag ngeen baal ma aax liiruma yeneen intervention yi parce que dang maa danga maa xàlloo li nga wax parce que lépp ay dëgg léppay kaamil ay kaamil loolu moo tax ma ne xaar ma defal la benn résumé su boobaa ngay xam Cheikh Béthio waa moo sooke lii yëpp ba pare indi problème bi bàyyi ko fi dem yoonam indi lépp teg ko fi ay nag nekk ku gàtt xel waaw ku gàtt xel Aïda Diallo boobu ma lay wax bale ma àq ñooñu pël yi ba ñu ñëwee ba wax ak yaayam suñu mbokk yi laa wax de sama papa bokkoon na si délégation xam nga leen yaayam tontu moo wax leen en dehors de son mari yaayam da koo ngemb xam nga yaayam lu mu wax yaayam dafa nii moom ba muy marié ak papa Aïda elle était la dernière ñeenteel bi nee na dafa fekk muy liggéey trésor mu nekk intellectuel nee na jëkkëram ni ko sama jabar yi du ñu liggéey bàyyi sa liggéey mu xëccoo koog moom mu ñëw mu ne ko boo bàyyi sa liggéey ëllëg di nga am doom bu ñëpp di coow <laughs> xoola yaay Aïda nee na barki démb njaay yee après màggal bi de ne yaay Aida nee na doom boobu yàlla moo ko ko fayee Aida Diallo mii jëkkëram moo ko lool kon Aida fan lay changé taalibe yi jiital ko jëkkëram jiital ko yaayam jiital ko ay mbokkam am na nekk ñoo xam ni c'est des arrivistes parce que moom maam ma ko yar papa dafa teel a gaañ yaayam amatul woon dara ñu jëlee ko Dagana indi ko euh, Fass sama maama ko yar ayda barki salaatul faati ba may jàngee de la fosse maam Thierno la doon jàngee ba gañe fa miis après dafa bàyyi jàng barki salaatul faati billaahi wallaahi wa taalaahi xam nga lu mu doon jaay crème. baal leen ma sama téléphone bi doon sone bee tax xooluma sax minute yi ma def baal leen ma ax bëgguma minute yu bëri comme ni ko Aminata Touré waxee xool leen cheikh bi yóbbu Aïda foo ngeen commencé gis problème bi muy jël jeng dëgg si Aïda mu metti mbokk yi metti lépp yi nga lii Aïda def nii barki Cheikhu Tidiane sunu mbokk pël yi nekk Richard Toll Dagana Daara yépp ñëw nañ kër yaayam fii Medinatu Salaam Mbuur lañ ñoo fekk si fa Aïda ak yaayam yaayam séeréer la nday fay lu tudd yaayam dafa ñuul kuk kuk kuk kuk Aïda li muy xees si paaf mu la jël ba ñu ñëw sama mbokk la ak xan ak xan ak xan ah ñu de suñu famille amul lii suñu biir famille nag genn wàll pël yëpp ay murit lañ genn wàll geneen yëpp ay tijaan lañ voilà ñii ay taalibe bàyyi lañ ñii ay laay façon tarixe bu nekk am na suñu famille dañuy dajee chaque année Richard Toll chaque année xub fi dëkk bi ñu xum xumma pël ñëppay ñëw toute la famille famille bi yëppay ñëw fu ko foo nekk Sénégal di nga jóge ñëw Richard Toll mais lii musul am suñu famille am na xale yu mu jotoon sax jël dagana yóbbu leen def leen ay bëkk néeg maye leen dugg na fii mais seen bàyyi pël ku nekk xam na pël seen bàyyi wëlbatiwaat nañ seeni xel ba ñu dellu Aïda Diallo pël yaa ngi ci taay ay tànkam maa leen ko wax yéen a surtout laa ko waxee ku wax si whatsapp xam nga sa wax dem na amatul looy nëbbu man mii maa ko wax mantitin saw seetaan leen pël yi ak Aïda Diallo waxuma sëriñ yi de waxuma kilifa diina yeneen de waxuma sëriñ di de waxuma it gouvernement wala ñeneen de mais Aida ma ngay dem Inde fa sëñ Béthio doon teg tànkam si ay sëriñ yëf fétiche yu ñuul yi Aida nga dem ma ngay dem Mali fa lay ay nagam am ay sëriñam ñu koy ngemb waaye seetaan leen ko ak pël yi tamit sëriñ buñ ko wérdalee seetaan leen ko ak pël yi da ngeen a waxoon nañu lii sama mbokk la yéene ko ko franchement et bu ma sañoon en tant que mbokkam wax dëgg yàlla duma dégg lu ñaaw li ci moom duma dégg tamit lu métti li ci moom duma nangu man mii sama bopp may taw ci commenté mais nag moo ko defaa ah. nee nañ ku démarche yaa tàgg sa bopp xuja sekk yow xanaa <laughs> dëkkoo si dëkk bi ba yow xamoo lu xew ay la jaar réseaux sociaux yëpp moom la ñuy waxee non ngeen baal ma àq nag explication yi gudd lool sama intervention fallait que ma joxe ko mais fallait que ma am lu ma leen leeral ci Cheikh Béthio fu mu commencé Aïda fu mu commencé sëñ Mountakha nag macha allah yàlla na fi yàgg te wér kooku moom macha allah macha allah macha allah yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér barke lépp lu mu am yàlla teg ci loxo macha allah may ziar sama mbokk murit yëpp ci màggal bi di leen baalu àq di leen baal àq dama xawoon tawat nag loolu moo tax. Serigne Saliou am na lu mu gis Cheikh Béthio ba tax mu def ko loolu mais nag ça pas dire que ñu bàyyi woon Cheikh Béthio si la ka neex li nga wax je tout à fait d'accord avec toi Aminata Touré Cheikh Béthio ay doom waruñ ko sax doon cantakun moo war woon amati parce que kii il n'est pas sëriñ bokku si doomu sëriñ bokku si famille sëriñ Aïda Diallo bokku si famille sëriñ nekkul doomu sëriñ nii riinitu ñoom ñaar ñëpp ah sëñ Cheikh dee ñu ne dañ koy doon Euh, pour guider cantakon nañ waxante dëgg nag foofu doon am fa am Aminta euh, Touré li nga wax laay dëggal dama ko sama papa ba ma woy expliqué bi li leen yaay ay rek tontu laa leen ni yéen yéen a ñàkk far yéen ña fay dem barki Seydina Mouhamed deux ans ma gëj a dégganteeg moom ndax man maa quitté sama kër mu woo ma ne dafa ma namm dafa jóge Chine am ay bagage dimbale ma comme yor nga oto ñëwal boobu maa ngi sali ma ànd ak sama benn cousin bañ demee dafa ma ni naa ñëw jébbalu Cheikh Béthio ma ne ko man jébbalu naa sama borom kër ba pare man taalibe bàyyi laa taalibe cheikh laa dama jël wird salaatul faati ba pare ma tarbiwu donc yenn yi duma ko def Aïda loolu la jote man ak moom te du jote sax parce que après elle a compris mais nañ mel melatuñ ko parce que wootanteetuñu xëy na bëggoon na ma xëcc si côté man it du ma ko nangu parce que am na lu ñu ma wax man sama tarixa donc du kenn warul diingat moromam mais Aïda comme ni nga ko waxee du doomu sëriñ Cheikh Béthio du doomu sëriñ affaire cantakun moo fi waroon jeex yi nga gis nga gouvernement bi tam ay seytaane lañ parce que lan mooy yow kee mu ne ñu ne ki sëriñ Muntaxa mu ne kii mooy giddee cantakun nga ne kooku demal jannatu ah ayda jaa demal ngaabu seet ngaabu moom ayda yàgg na faa defee gàmmu pas màggal mais ay gàmmu ngaabu voilà donc demal fële yaa ngi jox gëdd ayda yaa ngi jox pouvoir ayda luy luy loolu ayda toppal man Aly Ngouille Ndiaye mooy kan ayda toppal ci ginnaaw kii sinon yaa xam fa la neex nga dem mais duma la jox fenn sëriñ gi tamit seetaan ko ayda di def effectivement dégg naa li nga wax li nga wax noonu li nga dégg man dégg naa ko ka dafa takk ay sëy am na ñu am doom ñëw ñu dañoo bëgg moom mu tudd seeni doom nañu waxante dëgg dëkk bi dafa tas am na ñeneen ñuy dem ba ne Aida si benn lobbying la bokk lobby bu nekk France am na benn euh, benn femme bu nekk France di jiite jumaa kooku lobby yooyu dégg naa euh, nekk ci derrière cette femme là moo nekk ci derrière Aïda Diallo am na góor jigéen tam bi nekk France nekk fa imam xaw ma na dégg ngeen ko dégg naa Aïda Diallo tam lobby boobu ñoo nekk ci ginnaaw yàlla rek xam. kon nag ma wax leen benn affaire Aminata Touré sa résumé bi ma daanee laay ñëw tey danga ni Cheikh Béthio seexal na ko def na ko jëwriñ universel moo njëkk effectivement seexal na ko effectivement gars yi mer mais Aminata Touré xanaa da nga fàttali barki démb Ndiaye 17 avril ba Cheikh Béthio feebaree. ah nekk nekk nekk France euh, Aïda Diallo moo jiite seen diset avril ay doomu Cheikh beeco ñoo njëkk ñàkk fayda comme seen papa ba seen papa parce que benn doomu Cheikh Béthio nekk na Europe di wax naan papam lu mu def Aïda la Aïda nii Aïda naa Aïda nële lépp papam la parce que man du ma nekk doom man ma nekk taaw muy góor muy jigéen ñi fa nekk ñëpp ñu gis sunu bàyyi def naka su loolu malgré que sëriñ la du sëriñ da dañ ko seexal sëriñ Saaliw may ko lu mu mayul kenn muy lan loo ñaan dina di loo ñaan nit mu am mais nañu waxante dëgg sëriñ si tamit bàyyi Cheikh Béthio ci la ka neex Cheikh Béthio takk si sëy si juróom-ñaari sëñ Saaliw sëy xam ne ni ñu koy takkee di di maye si ay di di di tudd ay doom si juróom sëñ Saaliw ñëpp xam nañ ko sëñ Saaliw billaahi wallaahi wa taala ak sëñ Fallou laa gën a bëgg si taalibe si surtout si mm, xaw ma surtout sëñ Touba u doomu sëñ Touba parce que du ma murit mais je sais que ñaar ñooñu sëñ faalu doomam la sëñ Saliou xawma ma lanam la mais ñooñu dama sax toog leen gént barke Seydina Mouhamed kon ñooñu ay sëriñ ak xam lañ